من خيره يا الله يا من لا إله خيره يا من يجيبني دواما خيره سل وسلم سرمدا يا رحمن على الذي يجيب الأسماء maa ngi lay nuyu di la siyaare sëñ bi ren boo xoolee murid yi ko ci gis danaan màggal gi moo ma dàqal ci màggal yi wala màggal gi mooy màggalu pas-pas dafa mel ni dafa jur benn signe de révolte ci maanaam ci murit yi waaw man de màggal gi moo dàqal moo dàq ci man boole màggal yi fi jaar yëpp ci fànn yëpp bi njëkk mooy mbégte bi ma ci am daa mel mosu am ci màggal yëg-yëg bi ma ci am dafa mel ni mosuma ko ci am ci màggal ba pare xéewal yi ma ci dikkal it mosuma dikkal ci màggal loolu nag euh, kemtaanu Serigne Touba la ndax sëriñ Touba Xaadimul Muxtaar bisam bii da du bisub caaxaan du bisub fo bis la boo xam ne euh, bisu bis bu ko sunu borom bi jox la jox ko ko moom rek ndax mënoon sëñ bi mën naa woote bis bu ne mënoon naa woote bis yu ne waaye bis bii rek la digle ne nañ ma koy santale sama borom bi te bis bi nañ ma ci santale sama borom la wax waxoon ne bis bi kat yéen murid yi na ngeen ma ciy sant ndax lu ma am ba mën leen ci yéen laa koy def lu ma am ba ba tax ma mën leen cee taxaw wala ma mën leen cee jàppale wala ba mën ba ba ngeen mën am ci man ba ngeen mën a jariñu ci man eh, ci bi laa ko am kon na ngeen ma ci sant waaye dafa wax ne na ngeen ma ci sant le sunu borom bi ñun nag ñu am fula ju toll ne wala boog man ma am fula ju toll man di ko ci sant moom sëñ Tuubaa waaw ndax deseelatuñu dara ndax lu ñu am moom la kon nag bu ñu goree lépp lu ñu digal sunu dara waru ko fekk ndax damay wax ne ni mu waxee ne maxat ba xabetel muxtaaru sayidina xubal maxaaniya wal ahlina wal walada noonu mu waxee ne bëgg gi mu bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax bëggatut alal bëggatut ak njaboot bëggatut ay kër ñun nag loolu lañ ko delloo mooy ñun ni ñu ko bëggee moo ñu gënal al sunu lépp moo ñu gënal sunu lépp moom sëñ Tuubaa ndax defal nañu loo xamante ni bii gëm nañu ne keneen mënuñ ko doon defal ku dul moom ci fànn yëpp ci luñ mën a wax ak luñ mënul wax kon nag bu ñu goree bisam bi mu digal ñu ko bu ñu waxoon ne ku ñëw tey faatu man de bokk naa ci ñi nga xamante ni bii danaa ñëw bu may bu may ñëw danaa miraas sama bopp ndax euh, burgéelu sëñ Tuubaa àllaaxira lañ ko yaakaare ndax addu bi ku ne ma mën ngaa débrouiller sa bopp waaye nag àllaaxira lañu ko yaakaare ngir gëm nañu ne sunu boom bi ruus ndax mom mo waxone al alaaxira de yàlla dalay rus wala nga ànd ak ku muy rus wala mu rus lola kon nak te non muñu ko digale tam wax ko mu tek waxuma la sax ku jël wax ne tubaali xaddin muridin saadix lohumo bi bi xidmatin aw bi xubin aw xadiyaati kon bobu murid mom la concerner waye dafa am bu waxat bu gëna a doy waaye mooy la si yu xibbu ni suhada yallu fofu dane kuma sopp rek nee bis ba nga xamante ni saa bu saa taxawee ñi nga xam ne ñoom la way taxe yi ñoom la seen ñoom la seen kanam di leer man bu képp koo so sopp bi bis boobaa sa kanam dana leer kon waxul ne murit bi waxul ne beneen diine wala leen waaye dana ku ma sopp rek kon sëñ Tuubaa gi noonu ba pare bis bi nekk bis boo xam ne bis bu bu yéeme la ndax moom ci boppam moo wax ne te sëñ Abdul Ahad yàlla na yàlla yokk ay leeram tax ci barke moo ko waxal boppam ne Euh, Serigne Touba nee na àjjana amul bis waaye bisu màggal bu ñëwee waa àjjana danañ yëg na tey ji bisu màggal la ngir xéwal yéen doon xéwaloo day am yokkute goo xam dañ xam ne lii am na lu xew kon nag ndeem loolooy am ci fële asamaak fii kon nag ñun xamoon nañu bisu màggal gi fa màggal gi kenn mënu ko fomm xamoon nañ ne faw ñu def ko parce que ñun ragaluñu dee ragaluñu feebar xamal lu ñu ragal mooy sëñ tubaa woote wuyu si lu ñu ragal mooy sëñ tubaa digal te jëfe woon ndax ñun sëñ tubaa mu ñu gënal suñu mu ñu gënal suñu roo kon ak lum ñu digal amul lu mën a taxaw lu tee ba duñ ko def xanaa suñu bakkat yaa man yajiibu li